mbokk yi ñu bokk sant yàlla julli ci yonent bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa adka taslima waaye duñu deñ di sant xéewalu yàlla ya ñu yàlla defal du deñ di ko dottil suñu kaw ndax moo ñu ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante xéewal yama leen di xéewalal ma yokk ko ma dolli leen kon sant yàlla war na jaam ju ne waaye ñu sant yàlla ci ñaari xéewal yam ñu defal ci ndoorteelu bés bi xéewal bu ci jiitu mooy xéewal ibaadaat bi nga xamante ne moom la jullit yi doon jëfandikoo waxtu si néew ci ginnaaw ci jàkk yi ci jumaa yi ci béréb yañ koy joxe waaye ñaareelu xéewal bi mooy xéewal bu nga xamante ne da ci yemale mboole mbindaafoon yi amul kenn ku fi nekk lu dina soxla xéewal woowu te mooy xéewalu nelaw te mooy an nawm yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki jàngal jullit bi ne xéewal boobu di nelaw yow jullit bi saayi la ko buri yàlla yombalalee mu yénke walla ba ci def as nga ñam ci tuut boo ci noppee lala war mooy nga sant yàlla ci anam bi nga xamante ne noonu la ko yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa kon ñu déggee ci maana wax bi mooy yow jullit ba jëfandikoo xéewalu yàlla ba ñu naan new te mooy nelaw ginnaaw bi nga jëfandikoo xéewal woowu yonent nee na bu dee danga war a sant yàlla jarul nga am coono bi ngay jëf walla jarul nga nekkee anam bi nga xamante ne dalay andil coono doy na rekk nga ne alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur doy na rekk nga génne baat bi sa gémmiñ nga ne mboolem xeetu cant yu kawe yi ñeel nañu yàlla ndax mooy buur ba ma delloo sama ruux gannaaw bu mu nammee ci sama jëmm dee bu ndaw waaye nag bu ma paree ci dund bi ci moom yàlla lay delloo subhaanahu wa tax na bu ñu yonent bi jàngalu toon ne jullit bi bu yeewoo ci nelaw bam doon nelaw baat yi la war a wax bu duwu toon njàngale yonent bi salaa ci xeet bi amul kenn ku ñu koy xamal boo ñu koy xamal tamit du doon comme na ko yonent bi jàngale aleyhi salaatu wassalaam ba tax na yéen a ngi fàttaliku bokk na ci xéewal yañ doon ñaan yàlla jongante ndaw réew yañ doon joŋante ngir askan bi ñañu wara a tànn ñu doyloo leen yóbbante leen ci péncum ndaw réew mi ñaan nañu yàlla suñu boroom yan nañu yàlla may ñu fekke ko ci jàmm yàlla may nañu fekke nañ ko ci jàmm ñaanoon nañ yàlla yàllañ ci dugg ci jàmm yàlla may nañu dugg nañ ci ci jàmm ñaanoon nañu yàlla yoon nañ ko defee ci jàmm yàlla may nañ defee nañ ko ci jàmm ñaanoon nañ ko tamit moo may ñu ñu génn ci jàmm kon yàlla may nañu génn nañ ci ci jàmm na yàlla tànn fisal nañ ko ci fan yu niiw ci ginnaaw ñañu tànn tamit ñoomit it fa ñu far tànn nañ leen wala ñu leen di waaj a tànn ngir yóbbante leen ci béréb ba nga xamante ne fa la ñu war a teewal askan wi ña nangu ni ñàkk nañu ñoomit fésal nañ seen mbégte delloo nañ jukkal askan ba tànn tànneef bi ni mel ñeneen ñi wax leneen tamit jëmale ko ci askan wi ñooñu taxuñoo jóg waaye ña yore jikko bu toll ni nangu muñ féete la yàlla dogal ñooñu bind nañu wax nañu delloo nañ jukkal population sénégalaise wax nañ ne gis nañu tànneefu population bi ndax population sénégalaise da di population bu mature mat nañ lu ñu doon te kenn namunut leen jam naani ñu wone loolu ci seeni kàddu ak seen seeni xit ya ñu bind ñooñu lañu naan ñooñu ñooy ña wara meloo melokaan bi nga xamante ni dañuy nangu ne nguur yàllaa koy joxe waaye yàllaa koy jële ci ku ko dénkoon ba tax na waxtaanu fajar bay jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 ñu ngi ànd ak yéen di fàttalanteeg mbokk député ya war a teewal askan bi ci pencum ndaw réew mi yéen a ngi fàttaliku woon ñu ngi leen doon nettali ci sootu saad ci xissa yonent yàlla daawud alayhi salaam di yonent ba nga xamante ne buur yàlla jox na ko ndomb tànk yu kawe ci nguur bam doon diriger yàlla tàggatal na ko ay mbindaafoon yu nga xamante ne ñoo ëpp jëmm jooju dayo ñoo ko ëpp doole ñoo ko ëpp kàttan ànd loolu yàlla jël na mbindaafoon yooyu dugal ko ci sous contrôle buur ba ñu naan nabiyullahi daawud mu nekk buur ci jamonoom mu daldi nekk yonent ci jamonoom waaye mu daldi nekk boroom xam-xam bi nga xamante ne ku mu rawul ci maasam amul kenn ki ko raw ndax yàlla yenkeewal na ko ñaari mbir yi nga xamante ne bii da di nguur beneen bi da di nubuwa nguur gi mooy yàlla may na ko mu contrôler lu bari bari bari ci jamonoom ndax muy buuru dëkk ba woon ànd ak loolu yàlla may na ko mu doon yonent bi nga xamante ne da doon teg lépp ci la yàlla bëgg mu tombeek tiiralanu buur bi subhaanahu wa ba tax na nam doon doxale buur yàlla wax na ko yonent bi ci alquran ca surtu saad ñu nit ñu jukkil leen laaya boobu fas yéene ko andi si pénc bi ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97.5 ngir ñu war ko yóbbante suñu député ya ñu war a teewal ci péncum ndaw réew mi ndax xam ngeen ni suñu diine bi kat da di diine laayante biir ndax loolu la yonentu bi ne ad diinu nasiha diine bi kat diine laayante biir la kenn ku nekk da ngay jàppale sa moroom ci lànkatane bu dee ci kàddu la walla ci opinion walla ci solution walla ci idée na nga ko partager sa nawle walla sa ka nga xamante ne soxla na ko kon ñu nit ñu ngi teewal fii askan wi di partager suñu idée ak suñu conseil jëmale ko ci ña war toogal askan bi ci pëncum ndew réew mi nasiha beeg conseil beeg xelal bi nag ñu koy tibbee ci alquraanul karim di baatu yàlla ak doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa ndax loolu la ñu fi mag ñu baax ñi bàyyee doonte mate ñu taxawee ndono bi waaye ndegem doonte baat bu gàtt la wala baat bu yemamaay la dafa jar ñu fàttalante kook mbokk yi nga xamante ne ñoo ko yittewoo wala ñooy safoo kir gi walla ñooy safoo émission bi ci waxtu wi su ko defee ñu ñaan yàlla suñu boroom lépp lu ñu fi nar a dégg buy jógee ko ci alquran ak njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañuy tànn la ci gën a rafet waaye dañuy jëfee la ci gën a jekk amin ya rabbal mbokk yi yenn jàmm yi yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot xam ngeen ni ñu ngi taxawoon ak yéen keroog ba ñu ne leen yonentu yàlla daawuda alayhi salaam buur yàlla tàggatal na ko montagne yi ñuy sàbbandoor ak yonent yàlla daawud alayhi salaam ci waxtu yu ngoon ak keroog bu jant bi di waaj a fenk buur yàlla ne ak njanaaw yi nga xamante ne dañuy doon ay mbooloo ñoom ñëpp dañuy nangu jébbal seen bopp ci doxalinu yonent yàlla daawud ndax yonent yàlla daawuda moo njëkk jébbal boromam la nga xamante ne mooy nangul na boromam ne jaamam la nangul na boromam ne moom ab jaam la moo tax yàlla tamit daal di ko tàggatal mu ne wa tayro ak njanaaw yi maxshuraatan dañuy doon ay mbooloo nekk ay kuréel di ay façon njanaaw yu wuute kullun lahu awaab ñoom ñépp dañuy nangul jébbal seen bopp ci jamono bu yonentu yàlla daawuda alayhi salaam di sabal boromam ci ngoon ak ci bëccëg kon yonentu yàlla daawud daa nangul boromam boromam daal di ko tàggatal montagne yeeg njanaaw yi ñoom ñépp ñu boole nangul déggal tëralinu yonent yàlla daawuda alayhi salaam ci nguur ba ko yàlla jox kon yow député bi tamit fekk yaa ngi bëgg doomu aadama yi nangul la il faut nga nangul sa borom ne mooy sa borom te yow jaamam nga amaana du ñàkk yàlla tàggatal la kawe sa njort ci loolu nga nekk di liggéey ci pencum ndaw réew mi kàddu gi yàlla mën na ci def barke xelaat bi yàlla mën na kaa gën a yanjal xel bi yàlla mën na kaa leeral yéene bi yàlla mën na kaa sellal ba tax na ña la taxa nekk ci béréb boobee du ñàkk bu ñu gisee lii ci yow ah xëy na buur yàlla mën na laa tàggatal xolu jaami yenn na leen yàlla defal xel bu leer yéene bu sell doxalin bu jub ak gis-gis bu sore gis-gis bu leer te mu doon lay njëriñ askan bi amin ya rabbal demoon nañ ak yéen ba buur yàlla ne yonent bi ne wa shaddadna ñoo ko mul mulkahu nguur bañ ko jox bokk na ci lañ ko jox bi léegi wa aataynaahu jox nañu yonent yàlla daawuda alxikmata di xerañte te mooy sagesse jox nañ ko bi léegi ci ngëneel yañ ko dencal te jox nañ ko ko wa faslal xitaab ak wax ju leer naññ yéen ci yàlla daawuda discours ya mu doon joxe ci jamonoom dafa leer naññ amul dara la muy joxe lu dut nit ñi dinañ ko comprendre waaye amul dara lañuy ñuy àndi ci xeetu àtte yañ ko war a tegal lu dut dina ko àtte ci jub ak maandute moo tax yàlla ne bokk nañ lañ ko jox mooy wa faslal xitaab da doon faram ce kàddu ya nga xamante ne moom la doon jëmmale ci askan wi kon njëw député bi ba léegi ñu ngi lay laay biir na nga dangoo doon kuy làmboog xereñte ca la nga nekkee ci assemblée nationale na nga nangoo doon kuy ànd ak xikmata di sagesse ci assemblée nationale ci lañ lay wooteloo walla ca la ngay dugal sa vote bi nga xamante ne danga koy voté ngir lay war a mën a ñëw ci askan bi ngal la waaye nang ci am xereñteef te nang ko leerlu ba mu leer nañ bu dee kàddu ba ngay yëkkati la na leer nañ nang ci am faslal xitaab wax bu firiiku wax bu nit ñi mën a dégg wax ju nit ñi mën a comprendre bu fi nekk di wax anam boo xamante ne mel na ni wax nga mel ne waxoo bu dee waaw la nel waaw ba ñëpp xam ne waaw la bu dee déet la nel déet ba ñëpp xam ne déet nga wax waaye nga wax waaw nga daldi ko wërale anam ji nga xamante ne comme suñu maam ju baax rahimahullah si Ahmad Tidiane si al lam doon wax ne Zeydul Abidin day faral di wax naan kalimatul xaq urida bihal baatil wax ju déggu wax ju neex a dégg wax ju neex a consommé waaye nee na neen moo ko fonde nee na ko wër waaw boo ko songee rek dangay gis ne ndekete la ma seen mooy lu déggu waaye lu nekk ci wetli moom ay purit la bul nangoo mel façon nit yooyu ci assemblée nationale bul nangoo wax kàddu yi ni mel tamit waaw booy wax waaw nel waaw bi ñëpp xam ne waaw nga wax waaw booy ne déet nel déet ba ñëpp xam ne déet nga wax waaw ay xeetu ay xawma bulletin nii lañ koy wax yow ah, loolu warul nekk taxawaayu ku war jibal liy njëriñ askan bi ci bere boobee moo tax yàlla ne xamal naa daawuda bi léegi faslal xitaab muy wax wax ju leer nañ kon yow mi yàlla dénk nguuru assemblée nationale booy wax nanga wax wax lu leer na sa wax bi fireeku ba bu mu fasu na nga tënk sa wax bi boo bul ko tënk na leeral bu mu bañ a doon wax bu leerul bu mu doon wax bu lëndëm kon ndegem yonent yàlla daawuda yàlla wax ne waa faslal xitaab may nañ ko muy firi kàddoom muy leeral kàddoom muy leeral atte yi ak masalay kon yowit it na nga taxawee taxawaayu leeral ci pencum ndaw réew mi ngir ñala fa yónni ñu gis ne ndekk kiñ fi yónni de amul dara lam ñuy lëndëmal waaye lépp la ñuy leeralal façon député yi la soxla ca assemblée nationale yan na ko yàlla yombalal député ya askan yi yónni bere boobee amin ya alamin mbokk yi bi léegi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar fii ci Rewmi FM 97.5 ci waxtu wi ñu ngi ànd ak yéen ci xista nabillahi daawuda alayhi salaam keroog ba ko yàlla tànnee ci askan wa mu daal di ko jox la nga xamante ne mooy xikma ak wa xitaab yàlla daal di ko dëgëral nguur ba mu ko jox mu daal di ko jox sagesse ak mu jox ko faram-fàcce kàddu ak leeral atte yi loolu yëpp yàlla nee na ngénneel ba nekk faman maa ko jox sama yonent bi naan nabiyullahi daawuda alayhi salaam ba léegi bokk na ci buur yàlla tabaraka wa moo ngi nii bëgg a wax ak bi ne ko am na jamono woo xamante ne yonent yàlla daawuda alayhi salaam daa nekkoon foofu mu nekk mu di fa wéetal yàlla am bés ay ñaari jëmm ne cipp ci mihraab ba mu nekkoon ci sanagoog ba mu nekkoon walla ci jaamukaayu yàlla ba mu nekkoon mu di fa jaamu yàlla mu di fa wiital boroomam bés dafa jékki-jékki rekk gis ay ñaari jëmm yu ne cëpp kii ne cipp ci ndeyjoor kii ne cipp ci càmmoñam mu ne moo mais man ñii fu ñu jaar bu dee bunt bi la mu ngi tëju kenn mënu koo tijji ci ginaaw bu ne fenêtre bi la mu ngi tëju kenn mënu koo tijji ci ginnaaw waa ñii fu ñu jaar ba ñu ne cipp fii ah kon daawada am na lu mu yëg foofu mu nekk di jaamu yàlla ci mihraab ba mu nekkoon ci jaamukaay yàlla woowu mu nekkoon di jaamu yàlla ci mihraab moo tax la fa xew ak na mu xewee buur yàlla bëgg kaa nettal yenent bi sallallahu alayhi wa ngir xëytu yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam war si war a mën a jàngee ëlluwa ñu nit ñu jukkil leen événement boobu xew-xew boobu ci alquran ca suratu saad ñu àndil leen ko ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97.5 kon mbokk yi nañ leen dugg ci géeju alquran dem nappi suuratu saad xool aaya bi na mu mujje ak na ko buur yàlla baaxe yonent bi ci téere bu mag bi di alquranul karim buur yàlla daf ne yonent bi ne wa hal ataaka nabaul xasmi istasawwiroo l mihraab waaw yenent bi sallallahu alayhi wa sallam buur yàlla da ko ne wa hal ataaka xasmi is tasawwarul mihraab mu ne ko xanaa du yégoo wala dikkeewul la wala ñëwalu la yow yenent bi xanaa fekke woo naba'ul xasmi xibaaru ñaar ña xuloo keroog istasawarul mihraab ba ñu ñëwee ñu ne cib waaw ñoom dañoo jékki-jékki rek ñu ne cib ci mihraab bi waaw dañ ne cib ci mihraab ba yonentu yàlla daawuda nekkoon di wéetal boromam di ko doon jaamu subhaanahu wa taala buur yàlla ne ko is daxalu ala daawud fa fazi'a minhum yàlla ne ko fàttalikul keroog ba ngi nu cëpp ci mihraab dugg ñëw ci yenentu yàlla daawuda waaw fajatan ci mbettel waaw ñaari jëmm doomu aadama noo jékki-jékki rek ñu cëpp ci mihraab ba yenentu yàlla daawuda nekkoon di jaamu boromam yàlla ne is keroog fàttalikul bu ñu duggee ala daawuda ci daawuda fa fazia minhum waaw daawuda daal di jaxle daal am mbetteel daal di waaru na waaw ñaari ponkal yi ñii fu ñu jaar ñuy ñii fu ñu jóge lu seen tànk fi waaw tey moom ah tey moom beneen bés lakkat daawuda yàlla ne ne fa fazia minhum mu daal di jaaxle am mbetteel daldi am tiitaange xel bi commencé tiit xol bi commencé pat pati waaw buñ ko sañee wax ñu ne dënn bi xaw a rëcc ngir tiitaange xaalu ñaari jëmm yooyu ne daawuda laata xaf bul tiit bul xef bul jaaxle li fi nekk mooy xasmaani baga baaduna ala baad faxkum baynana bil xaq waaw wala tustit wax diina ila sawai sirat moo ne ñaari jëmm yooyu bu ñu cëpp ci mixraab bi ñu daldi dugg ci daawuda daawuda daldi tiit am li mu sentir ci jaxle ne ñii ñu jaar luy seen tànk lu tax ñu bett ma ni ñu ne ko laata xaf qaalu laa taxaf bul tiit bul jaxle waaw bu sa raf li fi nekk mooy xasmaani ñaari aji xuloo la ñaari nit ña xuloo la de maag sama waa ji dañu xuloo xuloo bu métti waaw kenn ku nekk nag defe ne yaa am dëgg kenn ku nekk defe ne sa moroom moo la tooñ léegi nag comme ñun mënuñoo àtte suñu bopp te yaa fi nekkal kuy doxal tëralinu yàlla ci kaw suuf si kon faxkum na bil xaq na nga àtte suñu diggante ci dégg wala tustit bul jeng te bëgg nañ tamit wax diina nga orienté ñu jubal ñu ila sawaa siraat si yoon bu jub xooj boo xamante ne amul benn dëng-dëng doo faral kii doo far jëmale si wet wee doo far jëmale ci wet wee nangu ñu teg ci yoon bu jub xoj waaye nag ñu fekk yowet nga nekk ku jub xoj waaw su ko defee gars yi daal joxe seen plainte plainte bi nag dañ ñu koy jéggal bu ñu delsee ñu daldi joxe plainte ya ñaari jëmm yooyu nar a jox daawuda ngir mu àtte seen diggante parce que dañu ne ko ne ñun ñaar kat dañoo xuloo kenn ku nekk defe ne sa morom dalaa tooñ kenn ku nekk suñu ñaar defe ne yaa yore dëgg kon na nga àtte suñu diggante ci dëgg bul jeng te nga orienté ñu ci yoon bu jub bi kon ñu nit ñu ngi rootee ci géeju alquran aaya bi bind ko ci encore doore di ko jox suñu député ya ñu war a toogal assemblée nationale kon taxawaay bi ngeen di taxaw assemblée nasonal ñu ngi leen di wax ne bu leen tiit bu leen ragal bu seen bët raf waaye koom àddina bum leen yóbbaale ba ngeen mbaay luy nasaxal askan bi rawatina jeunesse su askan bi lu leen di taxale kook seeni sago ngeen di ko bàyyi muy dugg ci askan bi bu leen ko alal jaral ñu ngi leen di wax la ñaari jëmm yi wax daawuda faxkum baynana bil xaq na ngeen àtte seen digganteeg seen bopp na ngeen doon àttekat seen digganteeg la ngeen di wote ak seen digganteek seeni boroom waaye na ngeen màndu seen digganteeg askan ba fa yóbbante ci dëgg waaye nag na ngeen xam ne yàlla dina leen àtte seeni taxawaay ba ngeen taxawee bérëb boobu keroog bés pénc kon ñaari jëmm yooyu lu ñu wax daawuda faxkum baynanaa bil xaq wala tustit nanga nga àtte suñu diggante ci dégg bul jeng kon yenn député yari dem assemblée nationale ñu ngi leen di yóbbante lépp lu ngeen di àtte lépp lu ngeen di vote lépp lu ngeen di ñodde ngir askan bi jot si lépp lu ngeen di dàq ngir mu bañu dugg ci askan bi na doon lu déggu na ko lal bu leen jeng dem ci privilège bu leen xool butuma sàmb wala butuma demb ñu ngi leen di wax ba léegi la ñaari jëmm yooyu wax daawud alayhi salaam mooy ne dañ ko ne wax diina ila sawa sirat nang ñu orienté teg ñu ci yoon bu jub yoon bu jub xoj kon ñu ngi leen di yóbbante yéen député ya teewal askan bi ci pincum ndaw réew mi na ngeen orienté askan bi na ngeen orienté askan bi jëmmale ko ci yoon bu jub xoj boo xamante ne du ngeen far jëmale ko ci fen beneen wet bi waaye du ngeen far jëmale ko ci beneen wet bi na ngeen doon député yu digg doomu na seen kàddu yi jub na seen jëf yi jub na seen yéene yi sell donte am na ñoo xamante ne sax kontur nañ leen ci cellaange ba ngeen nekkee waaye ndiggam programme mu doomu aadama yàllaa ko yore climat wu àddina yàllaa ko yore système ba ñu naan système système yàllaa ko yore sellalal sa yéene nga rafetal sa jëfin la si des nga bàyyi ko ca yàlla su ko defee du ñàkk yàlla suñu borom comme lu mu wax yonent bi ñaata kuréel yu ndaw ñoo mujjee noot kuréel yu mag ci ndigalu yàlla kam fi atin qalilatin galabat fi atin kathiratin bi idnillah aw bi idni rabbi kon loolu mooy li fi nekk nanga nga wéet ci maandute ba nga nekk na nga wéet ci déggu bi nga nekk na nga wéet ci jub-jubal jubbanti bi nga nekk amaana du ñàkk yàlla mën naa wëlbati ña la sore woon ñu jege la ñala la ñu accepté la ñala la wonoon gannaaw ñu daldi jàkkaarloog sa jëmm ji xam ne yow yaa nekk ci la nga xamante ne mooy luy njariñ askan bi yaa nekk ci digg boo xamante ne yàlla sopp na ko te yonent bi gërëm na ko su ko defee du ñàkk yàlla wëlbati xolu ña la contrôle ñu daldi la accepter su ko defee day fekk yow ci sa jëmm bopp nga nekk ci ila sawa israt yoon bu jub xoj comme la ñaari jëmm yi waxee yonent yàlla daaw dañu ne ko wax diina ila sawa israad yal nañu yàlla teg ci yoon bu jub ba ñaari jëmm yi sàkku ci yonent yàlla daaw da amin ya rabbal alamin mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yëg si fu ñu war a yëkkati jotaay bi ñay joxe xibaar ñu ngi ni taxaw ñu fas yéene leen dibbal bërëb bi saa ilina mawla jalla wa ala an yajalana min alladina yastamiuna alqawla fa yattabi'uuna ahsana allahuma ya rabbi ati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina wa aslih illahuma a'immatana wulata umurina allahuma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fi alqur'ani aladim wa nafaani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayati wa dikril hakim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu